radiallahu anhu wardaaw ñu ngi toll ci alfaslul awal xaaj bu njëkk bi jàng nañ muqaddima bi ak lam lay taayalee téere bi ak fam jaar ak ba bañ defar ko tey ñu ngi jàng xaaj bu njëkk bi muy nasabu cheikh radiallahu anhu wardaaw askanu sëriñ bi bàyyi askanam maanaam ay maamam moom lañ war a jàng tey moom bindal na ko boppam yu ci borom téere bi indi danañ ko leeral <clears throat> di jégalu borom xel yëpp ak borom xam-xam yi ak nitu yàlla yi ndax téere bi ñu firi yomb naa firi waaye yombut firi wax ci ku màgg yomb na waaye yombut nasabu cheikh askanu sëriñ bi laa anhu yàlla na ko yàlla gërëm هناك نكن فوفو بنجكون في خلافة الفاروق في خلافة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كي بوري جلني وانتقل ديك انت ديك تحان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كي وفي معارك فتوح الشام أكشي قرين أبي الشام ومصر أك مصر بتولية عمر بن العاص كي فل عمر بن العاص رضي الله عنه كي li ko commencé ci xilaafa Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ba ci jamono Muawiya ba ñuy ubbi Afrique Misra ak Sham ak ba Maghrib ak Qayrawaan am na benn ndaw loo xam ne ñëpp xàmmee woon nañ ko ci jamono boobu ci taarix ci jihaad ci yoonu yàlla kaana nekkoon na Naafi bun Abdul Qays Naafi doomu Abdul Qays bun Laqiit bun Amir bun Umayya bun Zarib bun Xaaris bun Amir bun Fihr al-Qurashi mu bokk al fihri mu bokk ci waa fihru fihru Quraysh rek <coughs> dañoo wax ne fihru ci maamu yonent bi la bokk moom fihru am na ñuy ne moom la ñu askane Quraysh naafiya nekkoon na yafxaru di puugare wala zamaan yi ci jamono waaye tiihu muy kontaan al aqraani ci kaw maasam gi yëpp bi wala di ci doomam al bëttali kay jàmbaar al mu'min ka gëm yàlla الذي كا البدوم جيغا خامن كان نيكون لفتوحه نيل اي اوبيم الاسلاميه هي كجو الاسلام وجهاده اك اي جهادم الموفق بين دبلين جوب جهاد موي مو خري في تمديد رقعه الاسلام تي تالال صوفي الاسلام والنكايه ان متتل بالمرتدين سي مرتد مانام ني غينان دين الله سي دين يالا asdaa talaf xafaha dipp ba mu jëlee dégg nga dégg jihaar yooyu ak ubbee yooyu taarixul futuhaat taarixu ubbee al islaamiya islaam al mashhuuda yadañ janoog seede al mu ne am na sëriñ bi ñu doon wax naafi bun abdul qays ci jamono yu njëkkoon daf puugare xoo doomam ji nga xam ne ci waa Quraysh la bokkoon doomam ji nga xam ne jàmbaar la ci toolu xare yi doomam ji nga xam ne ku gëmoon yàlla la xoon doomam ji nga xam ne yaatal na lislaam métital na ñi nga xam ne ni génn nañ ci lislaam ci jamono yi yi nga xam ne ñu ngi nettali ni lislaam di yaatoo di ubbeekoo ci réew yi ban doom la doon foogale xoo moom Naafi' ibn Abdul Qays innahu naka doomam jooju عقبة بن نافع من عقبة دوم النافع الذي ما يخمن كارن يكون قمر البطحاء دوير مكة وشمس السماء تيجنتب أسمان في الشمال الإفريقي تي تموي أفريق عقبة بن نافع بيداق أسكنو باي فرجم عقبة مي ما مملا تي قريش لبوك كون مم تسانم عرب لا waa quraysh ci la bokk quraysh nag mooy famille yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégg oqbatu bu naafi alladi mooy ki nga xam ne fataha ubbi na fii ci afrique yàlla mooy yéeme wasaa mu yaatal xalqatal imaan yi géwëb gëm yàlla wal jihaad ak jihaad wa xanaqa mu daal di xooj fii ci afrique riqaabal kufri doqi xéeféer wa shirk ak bokkaale yàlla wal ilhaad ak fitir uqbatu bu naafi moo ubbi Afrique Muawiya daf ko yebal mu ñëw dugg Afrique xeex fa jihaad fa ba mujj nekk dëkkul islaam sëtëm moom moo mujj moo ubbi xolu Afrique dégg maam ja moo ubbi dëkk yi ba ñëpp dugg ci Afrique nekk ay réewu jullit waaye sët ba ci jamono bu yàgg na gannaaw ga moo ñëw ubbi xoli Afrique yi dugal ci wéetal yàlla <clears throat> wala yi mooy ki nga xam ne moom moo lam tax tarit gàllankoorut sabilu jihaad yi yoonu jihaadam aqabatun ab gàllankoor ka daa bu jafe walam tasudhu fegut ko xaariatun benn musiba saw daa bu bu dansé bu ñuul kuk أم عقبة بن نافع قال يملون دف غير تسار الإسلام في أفريق فقبل الإسلام نك أي ريو أي آه، أفريق نك ريو جلد أمود بن قالن كور بكو تيوانا غور غور لكي خاربوف لم ميت ميت مم ميوان تلو ميوان تلو حتى وقف بمتحو باعتزاز تتد وشموخ أجيكتك وظفر أجاني على شاتي المحيط كتف سجيج bi juyush yi ànd ak soldaaram ya al muhannikiina yi am kattan ak xel wa fursaan yi ak jàmbaaram ya al muminina yooyu gëm yàlla fa qaala mu ne yaa rabbi yow sama borom lawlaa hadal baxar bu dutoon géej gii la ma daytu kon ma woy fil bilaadi ci réew yi mujaahidan di jihaad fii sabilika sa yoon xare na xare xare ba sës géej noonu yi daw mu ne yàlla bu fekkutoon ne géej gii mu ngi sama kanam koroon ñu ñu continuer jihaad ci yoon yàlla xadal shaabu ndaw li alladi xam ne istanaaw liggéeyloo liggéeyloo na ko al islaamu lislaam li nafsi ñeel wa alqaa mu sànn moom alqadru dogal gi mahabbatan mbëggeel minhu bu moom wa tawfiqal ak sens ndaw loo xam ne nii dundam yëpp liggéeyal lislaam la moom uqbatu bun naafi yàlla dogal na ci moom dégg nga mu nekk ko yàlla may sens yàlla bëgg ko istakmala matal moom moom uqba شهادة الأبطال شهادة جمباريا مانام شهيدك جمباريا الفاتح la ñi nga xam ne ñoo ubbi réew ya dugal fa lislaam amsaal Omar ibn al-Aas ñu mel ni Amr ibn al-Aas matal na ko moom bil butulati si njàmbaaram wala xanakati ak kattanam ak xelam wala mu tajaawaz te rombut baadu gannaaw ga sinnal isrina atam ñaar fukki at balaa muy mat ñaar fukki at ci la yore njàmbaar ak ponkale moom moom Uqbatu bu Naafi' mu ne wali bani ihda wa ishrina sanatan madiratun maqbulatun mustaxsana ko am ñaar fukki at ak benn war nañ koo nangul ngant war nañoo rafetlu ay jëfam moom nag yàlla teel na ko def jàmbaar si ñaar fukki at mu ngi xale ci lislaam Muawiya fal na ko mu ñëw ubbi Afrique moo ubbi dëkk bu ñuy wax Xayrawaan Xayrawaan mu ngeen jàng si risaal وتو النافع مكوبي هذا الشاب اللولي الذي من خمنا كتب بلنا على الان شي مدينة القيروان دكب قيروان ألف درس جنة در وحفظت موكلنا عن شي ألف عبرة جنة قلم قلم ويرتي تاو خلال قيروان قوم رقبة خمو رقبة بالنافع وانيوم خمنانكم دفنا فكي من قري موتهم لما كانت بمنكي قيح نبو أبيكو دف كريو الإسلام دف كريو الإسلام واي لما كان البم نكي موم قيروان غابات دي الله ملتفت الأح... م... غابات تندي على ملتفت الأعالي بفقت أي كوي أنا مكتم يب أي غرابلة ومتشابكة الأصافي المرابلة أنتو أي سوف kaw boo xoolee xëylawaan léegi ay garab ci kaw suuf gi nag moom kenn mënu faa dox ndax garab yeeg ñax yi duggante duggante taskanuwaa mu ngi ko dëkkee ak si baawu ndog bent yi gaynde yeeg till yeeg yi mooy rabi àll wala xayaat ak jaan yi wala xawaam ak yent yent yi mooy yu dox suuf yooyu yooyu ñoo dëkkoon xeyrawaan oqmatu bu naafi wam fa qaala mu wax lahaa ñeel jaan yeeg تليك يوي في ثقة تقولت من ربي تبرم لمن كان هنا من الحي فليرتحل فإنا نازلون فمن وجدناه قتلناه من من كان كنك هنا في من الحي ويدندي فليرتحل ندم فإنا نكون نازلون في نجي واتش فمن وجدناه كنج فك قتلناه نيريك دفا نيو تدك با فك فاي جانك دوك منتوك لوني من توخولين jaan yi till yi gaynde yi tuxu leen ñun ñoo war a wàcc si fii te ku tuxuwul bañ fekk la fi nag danañ la rey yëpp génn ci bi iznillah kon mi wala yàlla nañ ne du saxaaba nag nañ dund naag yonent ci at ngi xale dajewut ak xeex na ci lislaam rawatina ci Afrique walam yaatim yéexut saakinul waadi ña dëkkee ca xurwa ba mu waxee loolu lafa fa dëkkoon yëpp gaaw génn an xarajat mu génn asibaaw ndog ment yi bi zaraariha ànd ak seen i doom wan saabal mu rocceeku alxayaatu jaani maa ma jaariha ak seen yoon istijaabatan ngir wuyu li nidaay abdin ñeel xooteeb jaam boo xam ne xaafallaaha ragal na yàlla fa xaafat fu mu ragal ko asiyaa mbir yépp tilli yeeg ndok men fi ak jani ak ñëpp dal di génn fofu ci xeyrawan ngir huyu jam bo xamne bam ragale yàlla lépp ko ragal bo ragale yàlla lépp dañ lay ragal dafa ragal yàlla mbiri ragal ko motax bam ba mu leen génn leen ñëpp génn هذا rajulu بلا غور góor عقبه بن نافع الذي ما كان خنا بدا تامل حياته دندم بالايمان شي گم يالا dundam سنترم takk na ko bi mu qaaraatil fursaani ci dëbbanteeg jàmbaari xeex ak jàmbaari waxatama mu mottale dundam bi shahadati shahid dañ ko rey ci xare fi sabili maliki dayaan ci yoonu buur bi nga xam ne ni mooy fay ay jaamoom kon oqbatu bu naafi gëm yàlla ci la commencé waaye ba muy nekk ba muy am kattan di takk seen tëram lépp ci xeex ci yoonu yàlla la ko def fa mujj mooy dafa dañ ko rey ci yoonu yàlla mu shahid kaana nekkoon na moom xaw moom yekkinu di nëbbu fii sulbi ci ndiggam min xëyri an yaalama ci lu mu di ko xam aw yaalam wala mu xam xayruhu kudul moom ku nëbbu woon ci ndiggam saaxibal wala boobu mu ngi doon nëbbu ci ndiggam saaxibal fayda tijaaniya borom faydu tijaan bi al muhammad yeeki ka jóg muhammad al ahmad yeeki ka jóg ahmad fayda bi nga xam ni dañ koy askane cheikh tijaani ci bi dégg nga فايدو احمد لا دا فايدو نيو گنا مانا سانت يالا بورم فايدو بو موغي نبوون سي بير عقبته النافع الذي ما يقمن فتا ابنا القلوب قلي بورم فايدو بو مو ابي قلي الغلف ينتجون والاذان اك نوبي اسما يتخيا والالسنة اك لامن الخرس يلويا سي تود يالا خول يو تجيون مانو تخون مانو نيو دگ dëgg mm, làmmañu lu woon ci tudd yàlla moom borom faydu ba moo ko ubbi wala azaayim ak dogu yi àla qiima yu aji jërim yu aji jërmel jërmel mooy ko mënul am doom bu njëkk dog yi dañoo jërmeloon nit amutoon yitte ci lislaam xanaa yitte ci àdduna waaye njub moom ak baax dog nit ñi amuñ yitte dañ cee tayaloon bu njëkkoon waaye moom ba mu ñëwee fexe na ba yëkkati seen yitte mu jëm ci côté lislaam bàyyi dundam yëpp yitteem lislaam la doon sunu àdduna dégg loolu fexe na ba def ko wala iraadaat ak bëgg-bëgg yi almasluula yi day làggil ay loxo nit ñi seen bëgg yàlla bu doon loxo la ne loxo yi làggile woon bu njëkkoon waaye moom bu ñëwee fexe na ba loxo yi delluwaat ci cosaanam waxal la mu dindi wikaa shamsi dégg nga muuraayu jant bi di tubbaddi da ngir mu teqali ashaataha ay ceeneeram maanaam ay leeram بتوحيد الله تموي ويتلي على بلاد الله يشدك يالا جل تب جم يالا أقوي يتلي يالا بمورون بابا ينوي لفكو موري فور لير جن تب يتلي يالا دتشي سوفسي يالا تيب من أول علم بقون قائد الفتح كنا خمنا نمو جيتي بيغوغو في أفريق والإسلام أك الإسلام في إفريقيا ci Afrique chamalie bi ka jug càmmooy moom uqba bu xamone annone mom moom aslun cosaan la sahihun bu wér li qaid al fatti ñeel kay jite ubbe wal islam al islam wal iman ak iman wal ihsan ak ihsan la fi ifriqiya chamalie waxuma ci Afrique gi faree càmmooy faxas bu ndong wala fi afrique al garbiya waxuma Afrique ñu fare xarfu faxas bu ndong bal li fi nekk dana ubbi lislaam في سائر جيوب الدنيا تيمبولم والي ادنا وصغور العالم اكبنت أدنى به لو علم بخم عقبة النافع عقبة دوم نافع هذا العلم بلا قمقم المكنون بدب النبو لاستشهد كل المشهيد مرة ثانية يون نيارل فرحا غير بك وفخر اكبر وحمدا اكسنت وشكرا اكرم يال من عقبة من خم نمو بافريك سخم كي ابي افريك تي باتين ابي قليل jëf ci lislaam gu wér iman ixsaan ba ñu wéetal yàlla di dañ ci caaxaan ak aadaay yi noonu yàlla su oqbatu xamoon loolu su xamoon daal moom bàyyi ñes mu ci biiram koroon mu ne dana mbébét dundaat beneen yoon ñu rayaat ko ndax mu sant yàlla ci xéwal gi ko yàlla defal doom nag alwaladu min kasbi abihi doom ci faggu baayam rek la bokk doom ju baax dafay tekki baay ju baax parce que lu doom am rek yonent nee na baayam la moo tax baay mosoo koo gis mu puugar wu ci kaw baayam ndax jàpp na ne ngëneelam yëpp ngëneel la ci ngëneeli maraaji Abdoulaye wala alima dana xam xaqan ci dëgg-dëgg maanaa istishaad yi maanaa shahitam taxta salsalati suyufi ci ron yëngatu jaas yi asaari may aji dog wa xariiri dimaati ak kaddu yi deret yi al ayma yi aji feey ala ardil islaam yi ci kaw suuf suufi islaam mu ne uqbatu bu naafi bu xamoon ne bàyyi ñees radiyallaahu anhu mu ci biiram mhm. koroon dana xam lan moo tax mu dee ci yoon yàlla dee ci ron jaas yi di yëngatu ko ak ron deret yi fii ci kaw suufi lu tax mu am lii wa min ajli lu tax mu dee ngir lislaam wa fi sabili islaam lu tax mu dee ci yoonu lislaam wax nañ ne مومي مامي شيخ ابراهيم رضي الله عنه تي قريش لا بوكون عرب لو مومو اوبي قيروان تي مغرب دين من انه نك موم الشيخ ابراهيم بن الله عبد الله الذي موي كان خامي نظم وين نصب اسكن رضي الله عنه يلا كيلا بايم موم سي بوم مو ويل مو ويل اسكن بوخم وايه waaye ba mu tuddee maamam yi ba yegg ci maamam yi nga xam ne ay buur lañu woon dafa taxaw dafa arrêté parce que dafa am ci ay maamam ñoo xam ne ay buur lañu woon tuddut leen ci way bi dafa tudd rek ñi nga xam ne boromi xam-xam lañu woon nit fi yàlla lañu woon ñu ragaloon yàlla lañu woon te mooy li ko deree ci maamam boobu di Mouhamadul Amin ba ci baayam di Alaaji Abdoulaye bàyyi mu ne inni aqulu baada bismillah sallal ali ala rasulillah إني نك من أقول ما يوح بعد بسم الله جنا وكما سيشتر يالله صلى الله جل العلي على مكرم على رسول الله يشيرون تيالله باين دنا وانا فوالدي اسم واجور على عبد الله مو على عبد الله مرشد كل غافل مو جبل كيب كو ساغان ولا هين اكوي فو بري داغا ساغان ولا غا نيك سي فو بو جوكو سما باي جوي مو جبل والده واجور موم muhammadul moom mooy muhammad assari yu koy sang muhammad ñas moo jur alaaj abdoulaye dul kashf yi koy borom kashfu wala aql ak xel ak zaki bi aji ñëw al wëlli yu koy wëlli muhammad ñas moom maam alaaj abdoulaye bàyyi nee na ko amoon kashfu la kashfu mooy yàlla di ko woon lu bëri borom xel mu ñëw la waaye wëlli la woon waalidu za waajuru muhammad ñas mii ma demba mooy muhammad ma demba man xat mooy ki nga xam ne siiw na siitun jikkoy tagg lahu ñeel ko fi fadli ci ngëneel summa zaa topp mu tasaaro Mouhamad ma histoire am ci wàllu ngëneel siw na tasaaroo na ñëpp xam ne ko waaliduhu waajuru Mademba moomu Bakri Bakri mooy bakkri woowu moom alamun ku ràññeeku la. نجل الأمين بكر موي دوم الأمين محمد الأمين القرم كي سانغ محمد الأمين مي واخ نيم موي كي خاني مو نجيك ييتو كوتي خام خام اك غور غور لي با نيك نيت بروم خام خام بو ماك اي دوم تي لولو با باي جودو تي اسكن وو واي نيوم سين موم ما اي ماو اي بور لا نيوم وهو موم حكمون دنگا اتيكر لون مانام لو واخ رك نون لا ñii ñooy maamam yi tudd mu ne abaawu zaaka waaye bàyyi Amin moom ay baayam al umaraaw ay buur lañu woon as siid jengal seen dox xam nga buur yi bu njëkk bu ñu naan dox sax duñ mën dox normal nii dañuy def seen dox yi parce que buur dafa yëg bu foofu mu ne kii nag ay ay buur lañu woon yoo xam ne ni dañ naan jengal seen dox waxe wa wa lañ fa ñun xeyru du lool xeyru zaaka du lool mu ne waaye ñun suñ jublu waaye du nguur moo tax tudd leen maanaam maanaam waajur askan lu for la ndax xam ko dana tax nga xam nooy jóg koo sa mbokk lan moo tax nag baay di tudd ay baayam ba mu ñëwee ba ci buur yi mu arrêté parce que ba pare na ñun nag nguur taxul ñoo jóg moo tax tudduma leen parce que yàllaa ko tax jóg nguur intéressé wu ko bu dee alal yaakaar naa ne mu ngi ci buur yi wala ko ci buur yi ok bu dee daraja mu ngi ci mu ngi ci buur yi bu dee mbooloo mu ci buur yi léppi àddina daal ci buur la daje bàyyi compte ñi ñi yàlla dogal moom mu juddoo ci ñoom. compte wëllu yàlla yi wëllu yàlla yi borom xam-xam ba ci buuree mu arrêté hmm. ba pare na lii taxul ñoo jug jàngat la ci képp koo xam ne yaa ngi askanoo ci moom nga wut yàlla ak njub ak xam-xam xam ne loolu mooy taaru pee bi waaye du àdduna bu doon àdduna mu poogaroo maam yi nga xam ne ay buur lañ waaye bàyyi lay taar ci moom xaw ma lay taar ci keneen de waaye lay taar ci bàyyi mooy xam-xam ak njub jàng ba pare jëfee li nga jàng doon nitu yàlla loolu mooy taar ci moom waaye du nguur bu doon nguur la mu foog ay baayam waaye léegi nag baay mi nga xam ne ne am na ay baay yu nekk buur tooñuñ sax defuñ dara ay buur rek lañ yàllaa def buur rek waaw loolu may yàlla la yàllaa leen def buur puugaree wut leen nga yow mi nga xam ne nii rek naan taalibeem nga yow yow taalibeem nga wala doomam nga yow xam nga ab taalibi moom sëriñoo gën a foor doom bàyyi ko <laughs> gën a kawe bàyyi yilif yow mi nga xam ne danga ngaa askanoo ci moom ci ne taalibeem nga yaa ngi ci suufam yaa ngi yaa ngi nga sëtam nga nga yaakaar sa alal ju bëri jooju sa alal ju bari jooju mooy tax bàyyi di la foog réew nga yaakaar boo naxantee ba am alal ju ah, di tappale dajale mbooloo wut daraja nga yaakaar ne bàyyi dana la foog ku foog ay maamam ndax ay buur la ñu woon du foog ay sëtam wala ay taalibeem ndax ne am nañ alal ju bëri mm-hmm. yoonam nekkul ci loolu ndax maam ak maam yi ak ak ak maam yi ñoo gën a fort poogaréewul la ndax ay buur lañu woon waaye yow it bu fekkee jikkoy bàyyi jooju mu ngi ci yow doo tagg nit mukk ndax ne borom alal la doo ko tagg parce que mën na laa jox mm-hmm. doo ko tagg parce que bëri na mbooloo doo ko tagg parce am na daraja loolu lépp luy jeex la bal sax loolu li daan métti bàyyi ci la bokk te surtout anaam fi ànd na ko fa wala na bokk na ci biddaa yi nga xam ne ñëpp dëppoo nañ ne biddaa la mooy jiital ñu réer ci kaw ñi xam naxarlu ko foofu fal nit boroom daraja la fal nit parce que la ci lislaam ndomba tànk boo xam ni affaire lislaam la nga jox koo xam ne amul xam-xam loolu daf loon métti bàyyi yow nga ne moom ngay liggéey dafa pare lu ko métti rek ngay def daan na métti lu sunna ràpp gi mu ràpp ne maa ngi métti lu ni sunna ràppee bal sax ni xam-xam doon demee eh, delloo ginnaaw moo tax mu taarif tabsiratu anam fi anam mu wal imam parce que dafa gis ne nit ñi jàngatuñ góorgóorlootuñ ci jàng mu taarif téere boobu pour wan leen ne ren mbir mi ci xam-xam la nekk xaw kan la. moo kan moo nax ay taalibeem waaye bàyyi naxut ay taalibeem moom naxu kenn teg na leen ci yoon mu leen war a teg jaaral leen ci yoon mu war a jaar wax ñu dégg mu bind ñu gis ku réer yaa réer waaye moom rëdd na yoon wi mu leer nañ su ko defee lii ku nekk na ci bàyyi xel tudd say maam ba ca buur ya nga ne arrête ñun loolu taxuñu ñoo jóg xam nga ne du tagg mukk ñu nekk ci ronam ndax am nañ àddina euh, buur yaa leen ëppoon àddina buur yaa leen ëppoon waaye yow bu dee jikko mu ci yow doo tagg mukk ku nekk euh, kuy askanoo ci baay ndax àddina dégg su ko defee <clears throat> ñii ñooy ay maamam yi nga xam ni tudd na leen dine boo demee ci muqaddimatu diwaan tudd na yëpp am na nag euh, euh, yu mu bàyyi par rapport ak téere bi ñu jàng moom daf ne Cheikh Ibrahima doomu Alaaji Abdoulaye Niass la doomu Seydi Mouhamad Niass doomu Mouhamad Mademba doomu Bakr doomu Mouhamadul Amin ba pare borom diwaan daf ca teg doomu Sambarida fekk foofu doomu Samba Corofal la moo ñëw ci téere bi doomu samba ciro fall doomu samba rida doomu rida doomu shamsuddin doomu mayasin doomu hamid doomu habibillah doomu rida doomu ibrahima doomu sadiq doomu safar doomu batuni doomu adas doomu makamba ñi wax makam doomu uqba doomu nafi moom mu teg ci doomu abdul qais doomu aqil doomu amir borom téere bi nag doomu abdul qais doomu laqit doomu amir doomu umayya doomu sarib doomu xaaris doomu amir doomu Fihr mu kon ci waa Quraysh ndax Fihr mi ci maam yonent bi la bokk hmm? su kon li nekk ci diwaan wuute naa li nekk ci téere bi tuuti kon Cheikh Ibrahima doomu Alaaji Abdoulaye Niass doomu Seydi Mouhamed Niass doomu Seydi Mouhamed ma Demba doomu Bakr doomu Mouhamed Amin doomu Samb Curofal doomu Samb Rida doomu Rida doomu Shamsuddin doomu Mayasin doomu Hamid doomu Habibillah دوم رداء دوم إبراهيم دوم صادق دوم سفر دوم بطون دوم أدعث دوم مكمبة دوم عقبة دوم نافع دوم عبد القيس ونحن نواز الشبتير بيها خلنا هو قدر دوم لقيت دوم عامر دوم أمية دوم ضرب دوم حارث دوم عامر لما نكسير انتري تبي تي نامي عقبة أما نبي ما أمسك كلام دوم فهر ني ني إمامه baay dafa nettali ci histoire ay maamam nettali bu am solo su fekkoon ne <coughs> mënoon naa ko teg dama koy teg rek ñu dégg ko ñu déglu ko ñu ñëpp ma continuer waaye defe naa ne ku ko jeex danga ko gis mu ne mu ngi nettali Aliou Diagne di ko jottali mu ne nettali kooku ci baayam la ko jëlee alaaji Abdoulaye Niass mu ne seen maam Bakri mii ñu tudd nga xam ni ba muy tudd ay maam moom ñooy ci Amin fa la ñoo ñoo doon borom xam-xam yem mu ne Bakri dafa amoon ñeenti doom yu góor seen maam Bakri bàyyi ne dafa amoon ñeenti doom yu góor ne na lii ci alaaji Abdoulaye la ko jëlee ki ci gën a mag mooy Mouhamad Gadji Mouhamad Gadji nag boo xoolee fii tudduñ ko ci doomu Bakri yi ñu gis fii. kon dafa mel ni mooy Mouhamad ma Demba dégg nga ma demb moo mag ci doomi Bakri yi Mouhamad Ngàjj it wax nañ ne moo mag ci doomu Bakri yi amaana Ngàjj turu olof bi la Mouhamad Ngàjj moo ci magoon Mouhamad Ngàjj moomu moo jur Alaaji Abdoulaye ci doomu Bakri yi Mouhamad ma Demba ci la jógee dafay dafay niru ne Mouhamad ma Demba ak Ngàjj benn la Mouhamad Ngàjj mooy maam Alaaji Abdoulaye waaye amoon na ku ñuy wax Gumba. ay Habibillah ak Abdoulaye Mouhamad Ngaj Mouhamad Gumba Habibillah Abdoulaye ñeenti doom yi Bakr amoon na ren ñoom dañ laan def bu ñu xëyee dañuy dem seen toolu baay bay bu ngoon jotee nag ku nekk dem sa tool bayal sa bopp fekk Gumba moom mokkal alxuraan Gumba moom mokkal alxuraan ba ngoon jotee Bakr seen baay. wax xale taalibe yi ne <clears throat> dem leen ci toolu gumba yi ngeen bayle ko Mouhamed Gadji mi nga xam ne nii si gañoom ci la bàyyi war a juddoo parce que mooy maame laaj Abdoulaye ne ko ah bàyyi man kenn du dem sama tool man dimbale ma man kese maay dem mu ne ko waaw mu ne mu ne ko ma gumba mi dafa mokkal alxuraan mën naa jàngal xale yi te yow mokkuloo alxuraan looloo waral xale yi moom la ñuy dimbale Gadji ne ko noonu la mu ne ko noonu la Gadji ba fa toolee ca guddi ga mu laxas dem wuti xam-xam ànd ak rakkam bu ndaw boobu Abdoulaye dem pour jàng alxuraan ba mu demee amut kaamil amul moyen amul dara mu ab ab kaamil bind ko ci la jàng ba mokkal alxuraan waaye rakk jaa ko njëkk mokkal Abdoulaye parce que xelam xale ak xelam mag du benn moom moom la may di jàng alxuraan pour mokkal ko gumba dem na Fuuta moom jàng xalil moom ba tari ko moom <laughs> bàyyi nettali na li pour wan la lan la nit ñi war a xëccoo ak moom lan lan moo ko jaral xëccoo ba muy toog di ko nettali léegi ngàjj dellu si na tare alxuraan ci kanam ñëpp alxuraan ju rafet ba mu taree ba pare gumba tare tare gàjje na ko raw nga ma gaa waaye dinaa la jot ba samay sët raw nga ma de mais dinaa la jot ba ci samay sët bàyyi ne man toog naa jàngal doomi gumba yi parce que ngàjj moomu moo mooy maamee Alaaji Abdoulaye ah Alaaji Abdoulaye moo jur Baye Baye ne jàngal naa doomu gumba yi ba ma leen jàngalee ba pare dama ne leen nakamu du jot nañ leen <laughs> Aliou Diagne ne ko. yow kay jotoo leen waaye danga leen wis maanaam gis nga yitte day doomu baayam dañ ko raw ci xam-xam mu ne leen ah d'accord <laughs> waaye dinaa leen jot de ba samay sët mais wax na dëgg bu amutoon sët sax bu dul bàyyi rek raw na leen <clears throat> waaye laaj Abdoulaye rek doy na ñu ne ngàjja raw na gumba su dul alaay abdoulaay bàyyi noonu ca bàyyi dem na ba moom ñoom ñoom moom mooy seen sëriñ far dégg su ko defee lii su ko bàyyi nettalee daf lay bëgg a jàngal ne xam-xam dese war a rawante kursu bul nangu ko la ci raw boo demee nag ba mu mënuñ laa ñàkk raw parce que def nga li nga man yëpp te yàlla dogal na kii moo la raw parce que daa am koo xam ni da ngeen jamono wante moom moo la raw bul nangu mu raw la raw say doom raw say sët wa fi dalika falyatanafasil mutanafisun lu baax dañ ci xëcco saabiqu ila magfiratin min rabbikum hmm? mais lii nag ñaareel ñu koy def ñoom ku nekk la sa morom am da ko koy yéene waaye nag doo bëgg ñëpp am lu baax yow nga des gannaaw <coughs> kon fii la njëkkalante bi nekk man na li ma ci jàngal mooy képp ku askanoo ci baay moo xam askan nag deret la wala askan ak ruuxu ngay taalibeem ngay doomam ngay sëtam waxuma la doomi gumba yi waaye waroo nangu doomi sàmba yi ñëw raw la yow ci xam-xam boobu nga xam ne nii moom ay maamam dañ ci doon course ba moom bokk na ci course wa léegi nag yow nga nangu yow yow dellowaat mbir yi ba doon ñi nga xam ne nii xamuñ lu mooy dem sàmmi ca tool ya dina sàmm bonut waaye dama lay wax koo xam ne yitteewul jàng sàmm rek la la xam dem bàyyi doomam ñëw raw la yow loolu war nga ko bañ hmm? parce que mbir mi course la war ngaa fexe ni bàyyi fexe ba raw doom yi gumba yooyu raw googu continuer raw googu ku nekk war naa fexe mu continuer bàyyi sax daf laan wax ne man alquran sunna amul ku ma ko gën a dégg man loolu dama ci daan wax na kon taalibe mu warul nangu kenn gën koo dégg alquran sunna bu fekk sa sëriñ moo raw ci alquran sunna noo def yow ba ke ba taalibe keneen raw la loolu jaaduwul di lekk ñi ñëpp ñu baax lañ ñoom ñëpp ci usra bi lañ bokk famille bi bàyyam nett lii lii dafay def si rek ne gumba nag ku yéeme la woon pour wal na la ku ko bëgg la waaye nag xam-xam dañ ci rawante mu ne gumba ku yéeme la woon daf daan jàngal bu daan jàngal taalibe ba ngoon jot amoon na daara daf daan jël fasam rek ñu ay war leen seen fas ñu war ñu dem ci àll ba daw daw daw ba si kanam Aliou départ mel ni kuy xeex te xeex ji dëkkut moom mu ngi jàngale jihaad ga te fekkee wut ko parce que El Hadj Abdoulaye moom jihaad moom mu ngi ko doon jàngale si jamono moom te jihaad bi ñëwagut moom gumba dégg nga su ko defee <coughs> loolu bàyyi nettali na ko ci maamam yooyu ni ñuy teewoon xam-xam ak ni ñu ci doon kurso loolu moom moo ko waxal boppam jëre ko ci El Hadj mu ne wala la ajtul axir amaana xaaj bu mujj bi nasaxu nocc na ko xirqun ab sidit minal xatmi tijaani ci xatmu tijaani ci nga xam ne moo tëj wilaayatu Cheikh Tidiane radiyallaahu anhu ko yàlla gërëm Cheikh Tidiane ba muy tudd ay maamam commencement bi la tudd ak ca kaw mais tuddul ci jawaahir maam yi ba ci yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam tuddul lépp bàyyit fii dafa ñëw ba ci محمد امين مويم فوف سو دافا نيغي تود اي مامام نياارا لا نيغي كاو اك سوف دي لا نك ولا ما سي كومونسمون فوف ان نفا لب واي امنا نيم باي حيث كان با خا نيك نصب اسكن الشيخ الشريف متدبر لله ان الله يالا غرم متوارثا دي نين دونانتي ومعتمدا دي نين سكوني كولا اجدادي شرفاء اي مامام يا خا الشريف لن الميامين يباركه walakinno waaye moom lam yarfa bihi yëkkatiwut ci moom rasan bopp maanaam Cheikh Tidiane ay maamam bind nañ ko waaye loolu taxul moom mu doy ko sax xam na ne dëgg la waaye bàyyiwut ko xel xataa akkadaw ba mu feddalil ko la ñëw ko rasulullah yonente yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam bi ci waxam ante yow wala di sama doom nga xaqan ci dëgg wa karara mu baamu ko sa ñett yoon ba yonentu moo ko la gisal boppam jaharatan yonentu ne ko sama doom nga ci dëgg ba mu ñetti yoon mu door a xam ne moom mu door a gën a am lu ko wóor ne moom shérif la Cheikh Tidiane shérif moo tax koo xam ni sa dund yëpp ci xas Cheikh Tidiane nga ko def yow alkaani moo la ñeel rek ndax yonent bi ba muy génn àddina gaa daf ñoo dénk waa këram daf ñoo dénk waa këram léegi yow ku la yonent bi dénk loo ci war a def yonent bi daan na wax ne waa ansaar jéggal leen leen seeni ayib parce que dañoo dimbale yonent yàlla Muhammad kon daa am nit ñi xam ne nii luñ defati baal leen xam nga tax nga baal leen ndax la jiitu loolu dafay am bu dutoon loolu yonentu du wax ne waa ansaar nañ leen jéggal koo xam ne sëtu yonentu la man lu mu def baal naa ko am awma ci moom dara su ma ko mënee digal laal digal ko su ma ko mënee laay biir laay bu desul lu may xeex ma allier bu fekkee moom ñëw na ne foo mu xeex ak man ma def ni imaam Malik defoon dóor nañ ko moom imaam Malik ba mën a ture jàkk ja ba wax nañ ne dalaan yore feebaru toqal ci dóor yooyu ki ko doon dóor sëtu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu yëkkati buy dal ci man rek ma ne yàlla baal naa ko de imam Malik nee na yar bu mu yëkkati bu mu koy bu mu bu koy teg sama yaram man ne yàlla baal naa ko bañ paree mu toroxlu yàlla ñaan yàlla yàlla nga yàlla nga ko jéggal man jéggal naa ko ndax ruus naa ëllëg may dajal yonent bi mu ne sama sët bi nga dugg safara te yow yaa tax muy dugg safara Malik nee na rus na lool ah sëtu kenn du xeex ak moom kenn du ko xas kenn du ko ŋàññ boo ko mënee digal nag digal ko boo ko mënee laaya biir laaya biir ko ah waaye waaye kenn du ko noono kon ku du dëkk ci noono Cheikh Tidiane xam nga ne baaxul ndax sànq na ndénkaane yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam <coughs> waaye Baay it noonu la mel yonent bi moom ñun la dénk sëtam mais Baay ay doomam ak ay taalibeem yëpp yonent bi la leen dénk. Hmm? looloo tax toujours ma daan wax ne ku ne bàyyi jógee ne fi doomam yi yàqu nañ wala sët mi yàqu nañ wala taalibe mi yàqu nañ ak lay woo mën a teg waxoo dëgg ndax bàyyi ba muy géyaa ji génn àddina ci seyrul xal bi dafa dénk ñoñam waa këram ak doomam ak ay taalibeem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi du sànq ndénkaan yonent bi du sànq ndénkaan waaw kon su bàyyi dénk yonentu ba pare nga ne la bàyyi dénkoon yonentu yàqu na yow da nga tuumaal yonentu bi sallallahu bàyyi nga xam ne liggéeyam yëpp yonentu la mu dem bay gën a àddina jël lim gën a fonk dénk ko yonentu bi nga ne loolu bu yàqu na waxoo dëgg yow moom yaa yàqu hmm? waaw léegi-léegi wax ko maanaam wooteel nit ne moo doon yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ba yàqaale ñëpp far yàqaale taalibe bi bàyyeeg ñëpp bu fekkee moo doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi moom jëmmi yonent bi la dénkoon ay njabootam kon ku doomu yonent bi ñëwul fii pour yàq li bàyyi dénk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow mu wax loolu yaa yàqu su ko defee Cheikh Tidiane yonent moo ko xamal na ko sama sët ga sëtu yonent nag bëggal rek bëggal rek nit daraan bëgg nit sax ba bëggaale xajam yow nga bëgg yonent bi di xas sëtam

كما قال القائل كم نكو يكت بوخين نسبون كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا من ويكت بدفن نسبون أسكن لو وقمن كأن عليه دفا من دفا نك نورا لير من شمس الضحى بوجي سجن تبير يور وعمودا أكبنت بلير من فلق الصباح تلير صبح askan la gu leer naññi gu rafet ba mel ni jëntam yor yor moo ko may leer wala boo suba su fenk moo ko may leer dégg moo tax booy pogoré woone yow buur nga bàyyi la lu def du pogoré waaye am na ay maami buur booy pogoré woon wilaayatu mu raw lay maam yéen xam nga léegi dëkk bi léeg-léeg da gis koo xam ne danaan man sama sama maam buur la woon eh, eh, eh, loolu mooy puugare am hmm? loolu bàyyi am na ko waaye puugare wut ko mooy li yonent wax man maay sang doomu aadama waaye puugare wu ma loolu sama puugare mooy nekk jaamu yàlla sang laa waaye puugare wu ma nekk sang gi de la may puugare wu nekk jaamu yàlla parce que digganteem ak yàlla moo ko gënal digganteem ak nit ñi kon bàyyi sëtu buur la sëtu ay wëlli yàlla mais maam yi sës moom nag ñoom ñëpp ay wëlli lañ moom. قال وانا سيدي محمد عبد الله بن سيد في كتابي كتير من اخبار الشيخ ابراهيم من شيخ اخبار الشيخ ابراهيم دايغ نعم اول من قدم كي نجي كنيو على القطري السنغالي تي غوخ سنغال من اجداد شيخنا سيسن مامي سرين هوم الامير موي بوربا بورلون الرداء al arabi kay ka jóg arab allazi ki nga xam ne tazawaja takkoon na malikatul balad buuru dëkk ba bu jigéen ba al musamaat bu ñu tuddoon ci la wal mulaqaba ñu ko doon askane bi ñas ci ñas kon moom boo xoolee ñas gi jëleewut ko ci côté baayam yi <coughs> mais côté yaayam ci la jëlee ñas ci côté yaay ci lañ jëlee ñas maanaam côté yaay parce que ki njëkk a ñëw Sénégal ci maami bàyyi mooy Rida Rida arab loo mu ngi yëgu woon ci euh, côté xarfu bi ci arab yi ñu ne déedéet Maghrib ci boppam la jóge woon Maroc ñëw Sénégal fekk fa soxna suñu wax Jeyla Ñas doomi buur woon moom it mu takk ko loolu moo andi ñu leen ñu tuddee ñu sant ñas bil alif ci alif wa nuun ak nuun ñas alif la ak nuun wala yaa ak yaa al musannaat guñ tomb ñaar a taxtiya ca ron suma alif topp beneen alif wa siin ak siin al muhmala guñ neeral ñas alif la nuun yaa alif siin bu wow amu tomb fa laqabu mu santale ko al maxalliyuuna waa barab boobu bi laqabihaa ci sant ndaw si léegi nag moom it ñu ngi koy wax Elisa ñas doomam mi ñu leen wax ñas fekk loolu sant ndaw si la taarifan ngir xam lu minum si ñoom laxu ñëw pour bëgg koo xam ñu jox ko sant ndaw si foofu la ñas gi jóge waxoo moom rida moomu xaadimun mu ngi jógee mel maghrib arab yi ci maghrib ki nga xam ni ka jug arab la alkabir bu mag bi ittifaqan ci dëppoo ci côté arab yi daal si seen soowu fa la jóge loolu moom ñëpp dëppoo nañ ban dëkk la nag wa min al maghrib am na ñu ne mu ngi jógee Maroc bi zaat ci jëmm alal qawli arjax ci wax ji gën a lëng mooy maghrib la jógee ñu ne dee ci sow bi rek sow arab yi ñu ne ci maghrib la jóge moom moom rida <coughs> dégg dégg moom rida ci maghrib la jóge walaa yalbas du lënt alayka ci yow laqbun aaxara beneen sant mawjudun bu am fi addati amaakin ci lii mu ay barab min Sénégal ci Sénégal wa ak ci Fuuta waxuwa maanaam ne léeg-léeg ngis ci Sénégal ak Fuuta waaye mu ne ñes bi ak seen ñes bële du benn dafa am ñaari ñas yoo xam ni bokkuñ waxuwa ñes bil alif ci alif wa nuun ak nuun wala yaa ak yaa aydan ba tey laakin waaye nag yaa uhu yaa am taliha dina ko topp soor soor mu tasira bi aju jokk bi yaa ci moom min xëyri alifin ci loolu alif baynuma seen diggante ñas bu baay bi niñ koy bindee alif nuun yaa alif siin bu wow amaa yeneen ñas alif la ak nuun ak yaa ak soor amul siin ak soor ñas ñaari ñas yooyu bokkul ngaa gis ku ñas du fi bokku ci askan bi askan que ñas bee alif la ak nun ak ya ak alif ak sin bo ñas bi alif ak nun ak ya ak sad amut diggante sad ak ya ak amut alif foofumaa ñaari sant yoy laqabaane ñaari sant lañ muxtalifa lafzayn ñu wuté ñaari baat baati bokku ñu sañu nuñ leen bindee mutabaayinal maana yi ni yu wutee maana mutabaayidal unsaray ni yu wutee cosaan mu mutafaawital axruf yi wutee xaraf la ñas yi ci léegi nii buñ ne ñas la naan ñas rek mais ñas yi bokkul ndax da ngay dem feneen fekk fa ci Fuuta ak yeneen barab ci Sénégal nga fekk fa ñu fa sant ñas fekk laale wuñ ak ñas gi bokkuñ ni leen bindee bokkuñ xaraf bokkuñ dara hmm? kon li daa moom moo njëkk ñëw ni bu mu la jaaxal nag parce que ñu ne la bàyyi am na ay maam yoo xam ne buur lañ ci kaw kañ la limal lan la dafa xare ba dee ci yoonu yàlla yàlla may ko doom yu baax famille bu baaxee rek bu yàggee buur fenc waaye nag delluwaat na mbir mi sa cosaan la ñëw yàlla bu mu delluwaat ci nguur te yaakaar naa du fa delluwaat ku sàggan ba nekk buur yaay nekk buur rek waaye dana am ñoo xam ne moom wilaayatu gi foofu ñu continué ko moom gaa dañu wax ne hmm. xam-xam ñaareel ab sàmmkat moo koy am moom la bàyyi di bind ci e, tafsir su anam ne na yi wax nañu surutoon doomu baadoole yi xam-xam jugee fi ndax ñu jàng ñu ci ëpp seen bàyyi amuñ dara ñoo ñoo am yitte sa jàng waaye bu sa bàyyi amee dara boo xalaatee michu yeeg yooyu rek bu yàggee nga baay jàng ma dem lekk ci michu doo am xam-xam dégg waaye gars yi dañ ne raain sàmmkat mooy yegg ci ayin ga muy almu xam-xam waaye xam-xam boo ko amee nag bu dëggoo bu yàggee mu yeggale la ca moom miim nga muy mulku nguur boo moytuwul rek di buur parce que àdduna mën na laa jublu ci lu ne jublu la boo demee ba am lu bari ci mulku nga jëm miim nga mulku nag bu la yàlla dimbalul ci kaaf ga la la mooy kufru wedd yàlla parce que ngay dem ba lu la neex nga def kufru nag boo ko moytuwul mu delloo wàlla ci toroxtaane ga raax yu sàmm raaxin nga nekk raaxin sàmm <laughs> affaire bi noonu lay wëlbati ko boo toroxee nag delluwaat ci almu ga almu yóbbuwaale ci mulk mulk yóbbu la ci kufru rek kufru delluwaale ci raaya ga rek yonent ay maam am xam ne mën ngaa wax ne ay buur la ñu woon waaw parce que sëti Ismaayil ay maamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam eh, nekk nañ foofu gannaaw seen baay ak yooyu ñu ñàkk lu bari ci nguur gi ba daanaka ay xeex sa am na fa ba Xusay ibn Kilaab moom it ñëwaat na xeex deret ju bari tuuru pour jëlaat nguuru Màkka ci ñooy maamu yonent bi sallallahu alayhi ñoo fi gën yonent bi ma amee ay maam yoo xam ne yàlla dénk na leen nguur noonu ci àdduna jëlee du lépp ah, rawatina keneen koo xam ne doon na yonent bi naa maam yi buur dool dara nekku ci waaye li am solo mooy cosaan la sell na dellowaat nañ mbir bi ci xam-xam ko dégg su ma wuli de topp ñu jur li rida al arab yi ñeel rida mi xam ne arab la bi al amin sàmba rida rida moo jur sàmba rida su ma wuli de topp ñu jur sàmba rida ñeel sàmba rida al amiru kay buur ñoom ñëpp buur la al kabiru mu mag mu al maaruf buñ xam bi sàmba corofal ñu jural ko buur boobu buñ doon tuddee sàmba corofal dafa mel moom li ñu gaa tudd bëri na ñoom buur rek waykat yi ñoom bu ñu lay am affaire parce que xaalis lañ waaye moom ba ci buur yi dafa arrêté moom su ma wëlee di topp ñu jur li Samba al Amin Mouhamadul Amin allazi ki nga xam ne kaana nekkoon aliman di borom xam-xam doomi buur la gaa mais dafa dem jàngi moom yàlla daf ko dimbale mu dem jàngi parce que yàlla yi am na lu mu namm boobu ba di jàmbaar sujaan bu ñeme. boroom xam-xam la waaye dafa am fit jàmbaar xam nga li gën a jafe mooy te bëggoo àdduna yàlla rek nga bëgg loolu moom boo ko defee dangay liggéey lu bëri waaye waa mi xam-xam waaye tàppe dëgg goo gis sëgg eh boo ko waxee gars yi reem de <coughs> eh man lii ñëw mu ko mu ko waxee ñàkk sama xaalis ba ñàkk sama nangam rek eh mu ko waxee diw daf may mere noonu nga fi nekkee rek ba dee. amaana yàlla jéggal la wala mu jéppi la parce que sa defoo ko danañ ñëw ci El Hadj Abdoulaye ci darsu ñaareel bi daf doon jihaat xam nga ñun suñuy mag nekkuñu woon fii di wax rek ñoom seen bakkan bii lañ joxe woon El sëriñ kenn doon gënu koo doon sëriñ boo dee wëlli yàlla moo la gën a doon wëlli yàlla fuuf boo dee jege yàlla moo la gën a jege yàlla parce que. danañ ñëw ci tagg yi ko bàyyi tagg léegi daf na gannaaw Cheikh Tidiane jigéen jurul ku gën Alaaji Abdoulaye wala sax ku jurul ku mel ni Alaaji Abdoulaye mu jël bakkanam tayle ko dem ci toolu xare di xoo xeex ak xeefeer yi nga xam ne nii bokkaale ak xeefeer lañ bëgg a dugal Sénégal xam nga bakkanam xajoon na ci kooku xam nga li mu def yàlla tax de eh, jihaad kenn du ko ngis ñun nag tey amul jaasi amul dara waaye wax dëgg sax ñemewuñ ko wax dëgg parce que boo waxee dëgg man yaa ngi yaakaar ñàkk intere àddina mag ñi meluñu woon noonu <clears throat> woowoo moom amin awalu man tasaddara mooy ku njëkk a jug li ifaadati ilmi ngir jariñ xam-xam minazal bayti ci bile kër amin mi muhammad amin mi mooy ku njëkk a jug pour wuti xam-xam ci famille bi fa man xabloo ñi ko jiitu kaanoo nekkoo nañ umara di buur buur doomi buur buur doomi loolu fa amoon waaye moom moo njëkk a jug pour wuti xam-xam su ma wulite topp ñu jur lil aalamil amin ñeel lil aalimil amin ñeel borom xam-xam bii di amin wala du doomam al musamma bu ñu tuddee bakr bi kasri yi nga kasara raaga lañ koy tuddee amin moo jur bakr bakri nag moo amoon doom yooyu gumba ak ngàjje سؤال بنيت لون وعدم التنوين هذا أن ياك تنوين بكري دينكو دينكو تنوين بكري لن يوح نكسر راق وكان يكون من بكري حافظا لأجل موكا للقرآن يال القرآن مردوم يموكا القرآن صلى فل يموكا للمبالين فلي عالما دي برم خم خم مباركا مباركا سمو ولد توب نجور لبكري نيال بكري هذا بي محمد مديمبا بكري محمد مديمبا موكو جور وكان نكون مباركا لكون بركل سيدا دي سانغ متقنا داجي خرنا لكتاب الله نيل تيري يالا بي داجي فيري لو نيل موم جانغنا موم محمد مدمبا با نيك كم خم خم من تفسير القران وكان نكون كهفا دي جبل واي لاهل نيل نيونم وزمان اك واجامونو واجامونوم كو بوغون خم خم سي موم غران نيو اي مبوكم سي موم لن لا نيو مولين مولين جانغال سومو ولد توب ني جورلي محمد هذا السيد محمد نياس Mouhamad Mademba moo jur Mouhamad Niass Mouhamad Niass moom moo jur Alaaji Abdoulaye waxat kaana nekkoon na rahimahullah na ko yàlla gërëm xaafisan di aji mokkal li kitaabillahi ñeel téere yàlla bi xaqiqatan xifdi dëgg-dëgg mokkal Mouhamad Niass maami maami Baye Niass ki jur Alaaji Abdoulaye ku mokkaloon alquran la lool loolu royaat na ci Baye Baye xaw ma lu mu fàtte waaye fàttewul alquran alquran daf ko doon jàng saa su nekk dundam yëpp dafa mel ni tey la génne ci daara ja ku yéeme doon ci alquran wa yaarifu xam na tafsir wu firi alquran moom Mouhamed Niass xasanul xuluqi ku rafet jikkuloo waafirul aqli ku xel mu rëy la amoon moom Mouhamed ku dëgër mokkal la woon ku gaaw a mokkal tarwi dana nettali asiqatu ñu hóor ñi anu ci moom xawloo waxam. nit ñi wax nañ ne Mouhamed Niass bàyyi laaj Abdoulaye ne innoonu moom maa nasiya musut fàtte chey an dara loo xam ne samewo dégg na ko xattun mukk Mouhamed Niass moom dégg dara fàtte ko musu koo dal lu mu xas déggal mu ko mokkalee jeex na musut fàtte dara loolu nag wilaayatu moo ko doon maye wa kaana nekkoon moom Mouhamed Niass mii di bàyyi laaj Abdoulaye mu jaaba daawati di kuñ nangu ñaanam maanaam ku amoon ñaan gu nangu la bu ne yàlla rek yàlla ñëw وهذا لي مجرب لو اسمير تي موم شائع لو سيولا ذائع لو تسارع لا نيب خم نانكو تي موم ني كي موم بو نيان يالا يالا نانكو مانام كي جور الله عبد الله <coughs> سما وليد توب ني جور لي سيد محمد هذا ني سانغ وي دي محمد نيس الله عبد الله محمد نيس موم نك مو جور الله عبد الله الله عبد الله دي نيو تي موم هو العالم المعروف وهو العالم ويبرم خم المعروف بن خم والسيد أكسان الذي بما خمني بكل فضل موصوف كن من الله بكل فضل جبب نغنيل ومحمد أكشنت على عبد الله بن خم خم لبن خم نغنيل لولا نحرك أسكنيكم الشيخ الأكبر سرين بمقبة والقدوة الأشهر ما يرويك أي بدن السيو فرد الزماني ما يكويت جمونا أمون مرم ومبارز أقراني ما يكراوش أي ماسم مرم يم مولين روان من كان خمي لا تأخذوا دكو جاب في الله يتي law mata laa min yedd ak aji yedd mënoo ko yedd ba mu ñàkk def li muy def bu dee dëgg ray abdoulaye lii daloon na bàyyi xam nga léeg nitu yàlla dañ ko jàppee ku dëgër bopp fekk dëgërul bopp bu nekkee ci dëgg dara dëgg ko mën daf ko mën a tourner ci dëgg boobu mos naa dégg suñ maam Balqis soxna Cheikh Ibrahima di laanu muy nettali ci baay mu ne bis bàyyi danoon tukki dem Nigeria fekk dafa amoon jafe-jafe bu fa xew comme tey rek li xew nii si jamono ji nga xam ne boo ñëwee doo mën dugg fii Sénégal euh, maanaam doo mën a yegg fi nga bëgg a yegg parce que dëkk bi am feebar wala yu demee noonu mhm. dañuy am fu ñu tax di def nit ñi bàyyi war dem Nigeria te loolu fa xew ñëpp ne ko bul dem boo dem boo demee doo yegg mu ne danaa dem de bal euh, suñu maam bal xis ne ma ne ko bàyyi yoo tamit nag fofu dafa am eh, ko bul dem nga ne nga dem mu ne dana dem de mu ne bay lu mu xasaan ngank jeex na kenn mënu ko dindi mais lan lay bay li ngànkee ba pare nga nan ko dindil xam bu xamone bay bu ngànkee rek bay ko mu daj parce que moom lu ngank njub la mu ne dana dem mais ci histoire bam bam jeexé man dama ci dégg ne nek ben darsu la bëggoon joxé moko jaral tukki ba Nigeria ben darsu jangale dafa dem. wax ñi mu ànd ak ñëpp téye leen seen kayit yi seen passeport yeeg mboolem kayit yooyu bu leen génne dara man rek may génne samay kayit ñi mu ànd ak ñëpp moom mu wane ay kayitam ñu bàyyi ko mu jàll ak ñi mu ànd i patron ñëw ñu téye bàyyi dem ba toog ne ko Balxiis noo gisee àllaaxira Balxiis ni ko ah, man kay demoo àllaaxira moom wax na dëgg demagut. bàyyi na ko àllaaxira comme nii rek benn ñu rus la wala ñu am kuñ la rusee mu ne gis nga ñun bàyyi nañ ñu ñu jàll patron yaa ngi ne ñu téye leen <laughs> moo tax kuy mu kilifa de àllaaxira daa am ñu yàlla rus rek bàyyi la ñu jàll boo fa ñëwee ne di jaay ngand ngand lu maa julli maa naafila fee nañ lay bolaki malaaka yi seet nañ jëflante yow nga ne la yàlla yërmaande yàlla rek fa nekk hmm? waaw loolu nag. man jàpp naa leçon boobu rek la bàyyi jox bëggoon a joxe mu ne force mu dem Nigeria wala boog ci la bokk yonentu wax na ko yonentu wax na ne ku yàlla xisaab mbugal la kon kay ku yàlla rus moo fi nekk bu la yàlla rusul xisaab du mbugal kon ku moo fi nekk ku la yàlla rusee nag mooy ràmm am na ñoo xam ni diw moo tax dugguñ safara parce que daf leen ràmm kon loolu rek moo nekk àlaxira bàyyi noonu la meloon bu jàppoon dara it ci yàlla dara du tax mu bàyyi ko rey Abdoulaye noonu la meloon iksiru saada ki nga xam ni mooy iksiru saada iksir matière la boo xam ne mën naa jël pëdëm def ko xaalis laa ibrahim la meloon man nekk ku ku bon mu defar la ngay baax jikko ba tefe ba baaxril ifaada mooy géej ak moom géej la ci woon al mujahidul akbar jihaad kat bu mag ba na ci yoon yàlla jihaad yi doon saxaaba def moom def na ko am ñoo xam ni bu soobee yàlla tey bu leen yóbbuwoon ci toolu xare ba naaj bu tàngoo sax moo leen njëkk xam loo benn yoon waxuma ak jaasee ñemewuñ wuñ sax tàngoor wa malaay bilaay da daan dem moom ci toolu xare ba wa taw du diin dojub diin la diine la achaami xi ba aji yëkkati ko sul xas di boom cër alaw faru bi gën a law ci yàlla moo tax Sénégal seen i mag lañ leen liggéeyal suñ ko xamoon danañ leen wekk ndax pexe mu ne def nañ ko pour samp fi kéeféer ñoom ñu bañ ne du fi dugg ba dëgër nag ay nit yoo xam ne kenn xamu nit lan lañ ñoo jugee fële indi xalaat yoo xam ne xalaat xéeféer la bëgg bëgg leen gëm gëmloo ne leen mag ñooñu ay nit ñu bon la ñu woon mag ñooñu dañu wala boog dañoo juumoon wala boog si bidaa lañ nekk xam nga ne waxuñ dëgg de la mag ñi liggéey duñ ko liggéey taarixu mag ñi duñ leen ko nettali wilaayu miti parce que wilaayatu naxante du benn naasuru tariqati tijaaniya mooy ki tasaare tariqa tijaan ورافع راياتها مو يكتي درابو طريقة جان والمتصف ما أجي بسماتها تي أي ملكان يباخ والمتحدي مو يكويتو بآياتها تي أي كاوتفو كاوتفو طريقة جان أمنا تلو خمني كرن أموكو جي والمجاهد موي كجهاد بسيفي تي جاسم وقلمي أكبيغم بندنا وجلنا جاسم وبأقدامي أكتي أي ندقوم وبفمي أكتي جيم خيخنا أكتانكم أكي جيم ku sa maam jël jaasi nag nga mën a wax te yàlla tax rawatina bu fekkee boo waxee moo luñ la dara la taxoon sa maam jël jaasi bakkanam bi xajoon ci loolu yow sëtam waroo koo sàggane la taxoon sa sëriñ jël jaasi yow taalibe bi waroo koo sàggane su fekkee yaa ngi xelu wal mu qasimu ma aji séddale awqaatuhu ay waxtoom layla nahaara guddeeg bëccëg ala an waaye daawati islaamiya ci xeeti wooteel islam muddata xayaati di rek dundam dundam yépp xoote ci lislaam la ko defoon mën a moom alaaji abdullah xata xtaarahu ba mu tànn ko allaahu yàlla li jawaari yi ci wàllam wa sawaabiq karamaat yi ak teraangaam yu jot yi ba yàlla tànn ko andi ko mu dëkkaale ak yàlla jox ko ay teraanga wa tashrifaat yi ak ay teddal sanata alf wa salaasumia wa arbain lil hijra mille 340 ci gàddaay gi ci la génn àdduna moom bàyyi ko magee benn at moom laaj Abdoulaye xam nga bàyyi am na jour ñu ko doon fexeel ñu ko doon fexeel fexe mu ñaaw mu ne ñu bind ko leetar wax ko ko gars yi tiit tiit ba jaaxle bind leetar bàyyi wax ko ko moo leen dégg naa ci làmb ñu koo xam ne nii du wax caaxaan nee na man mbindeef ma warul ma dara ku mën a doon man sax yàlla jox na ma dund bu ëpp suma dund bàyyi waaye nag mbébétuma lool xam nga yow yaa ngi dund deegoo sa bàyyi nag xam na ñaata at la fi am nga ne ba yàlla jox na dund bu ëpp sa dund bàyyi dafa fekk dangaa xam sa bopp loolu wilaayatu rek ko man de moom moom magi alaaji abdoulaye benn at walaaji abdoulaye haza bi waalidu cheikhina waajur mooy suñu waajur suñu sëriñ dan bi sës ci moom alaaj Abdoulaye bi moo jur bàyyi direct danañ ñëwaat ci dundam waa kada feddali na cheikhu sëriñ bi radiallahu anhu yàlla na ko yàlla gërëm xaasan nasab bi la askan maratan oxra beneen yoon bàyyi wane na ne moom ci waa Quraysh la bokk cosaanam arab la wax na ko beneen yoon yow mu musaaharati bis ba muy gorowanteeg li Seydi Mouhamadul Habib ñeel sëriñ boobu di Mouhamadul Habib xafidi cheikh cheikh Tidiane surtout cheikh Tidiane la radiallahu anhu yàlla na ko yàlla gërëm bi xawli ci waxam bay bàyyi di gorowante moom daf ne fa naa naka ñun ala ànd naa ànd na ñun ndax fasu wëttu nañ nasabanaa suñu askan saxiixan muy askan bu wér ilaa jaddinaa mu jëm ba suñu maam al arab yi gi arab al qurashi bi bokk ci qurash bàyyi na ñun wëttu nañ suñu askan mu wér nañu ne suñu cosaan arab la qurash lañ bokk fa bil mu jaawara ci dëkkaaleek nit ñu ñuul xam nga rida dafa ñëw dëkkaaleeg waa Sénégal wala mu naakaxa ak takkanteeg ñoom sirna ci lañ mu nu addu ñuy compter mina Soudan ci ñu ñuul ñi li ñuy boole ci ñu ñuul ñi mooy ñëw nañ fi dëkk ak ñoom takk fa soxna mm-hmm. ba bokk ca loolu moo indi famille bi ci ñu ñuul ñi ñu cosaan li arab la Quraysh la waaye dëkkaaleeg ay nit ñu ñuul takkanteeg ñoom ah bu yàggee yow tamit nga bokk ci ñu ñuul ñi ilax bam jeex loolu la bàyyi wax kañ la juddu moom Cheikh ibrahim juddam nag am na wax waaye bàyyi bindal na ko waxam amma miladuhu waaye juddam radiallahu anhu yàlla ko yàlla gërëm fa min xattihi ci bindam naqaltuhu laa ko toxal ci bindam la waxee juddoom leetar bi بايك بدل بو من الحمد لله ما نسنت يا لوحده دون والسلام علي جم قول على من يال نك سي كان خمي لا نبي دي تك يونت بعد ولي نك سي غناو اما بعد غناو نسنت يالا فيني نك من اظن ما نجي نورت والله اعلم يالا رك خم ان بوب دا نيو ووتيون سي تاريخ بند تاريخ بو خمني ني بوكل موم لم جاب ني موي تاريخ جودو مني ان تاريخ الولاده نك سما تاريخ جوريل am 1318 la 1318 ci gàddaay gi ci la judd dégg nga génn àddina 1395 ci gàddaay gi ci gàddaay gi laa wax de mu ne wayn boo nekkee talaxeeta jël nga xaasaal yi mine si xaati ci ñu wóor ñi falaa tam xu bul ko faar bu dee histoire bi nga bind taarix bi nga bind ci ñu wóor nga ko jëlee bu ko faar waaye wayn aratta boo bëggatee ak taarix a bind taarix ci ci man baax du gannaaw ga faamal na nga jëfee bi ma asbatu ci li ma saxal ni waxal 1318 boobu ci laa judd wal xilaafu wutee fi zaaliku ci loolu laa yaduru shay an du lor dara foofu moom adabul muarrixina dabul muarrixina mooy baaxu taarifkat yi taarixkat yi wasalaam ñay def ñay ñay joxe ci wàllu taarix loolu mooy seen baax dégg nga su ko defee kon bu dee ci wakkata ba bind na ko Ibrahima bun Ali Abdullahi Tijaani bi Koosi ci Koosi en 1353 atam 1353 ci gàddaa gi dañuy wax kon 1318 la ba juddu ci gàddaa gi bi yonent bi génn àdduna ba am junne at ak ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñett mu judd mu ngi génn àdduna. ci gàddaay gi mille trois cent quatre vingt ñaata la soixante dix sept ans kon bu dee ci weeru xamariya bàyyi soixante dix sept ans la judd la dund juróom-ñaar fukki ak juróom-ñaar ci weeru xamariya amaa bu dee ci milaad yi mu ngi judd mille neuf génn àddina mille neuf cent soixante quinze kon su soixante quinze ans lay dund kon moom ci xamariya soixante dix sept ans la dund parce que weeru xamariya ak samsiya at yi duñ bokk juróom-ñaar fukki ak juróom-ñaar bu dee ci samsiya mu ngi dund soixante quinze ans juróom-ñaar fukki ak juróom ba 1395 mooy dundam ci xamariya boo koy xool ci hijriya noonu la milaadiya 1900 ba 1975 boobu juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar la wala juróom-ñaar fukki at ak juróom waxte maa sukkandiku ala hada ci li nazama ci la bind Alhaji Misri hada taarix bi la taarix fa qaala mu ne qarni kii defaraat maas gi istaraaha noppal na minu ci moom 95 maanaam quatre-vingt-quinze ci la génn àdduna wa umruhu te dundam kanzun kanz la istilaax mi ni mooy quatre vingt da ko def ay kii euh, li ñuy wax xisaabul jumal boo ko xisaabi noonu wa umruhu dundam moom bàyyi kanzun kanz la kanz boo ko calculé mooy soixante-dix-sept ans juróom-ñaar fukki at ak juróom ñaar waaye loolu mooy ci xamariya wa fii nekk na ci kunhu kunhu am na ñu ne dundam mooy soixante-quinze ans juróom-ñaar fukki at ak juróom waaye loolu mooy ci mooy ci mooy ci nu eh, eh, eh, mu kon dundam ci xamariya juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar ci Shamsiya juróom-ñaar fukki at ak juróom zaada yokk na alal ab bi ca bàyyi ji al azim bi aji màgg al azim al qadri bi aji màgg doyo bi sanatin ci at nee lam ëppee lam gënee gudd fan baayam mooy benn at مشام الشمس جنت مثل بدر دي من الباب كون وفي العجز الاخير تقاد مجبي اشاره من الى ان عمر الشيخ ندندو باي سبون وسبون سنه دروم نيار في كاتك دروم نيار قمر يا تشير قمر يا وخمتون وسبون سنه دروم نيار في دروم لا شمس يا سيور شمس ولا عالم يا الله يخم من خط سيدي الاج مشري اللي مو جوجي سي بنم مشري سوغي فين loolu mooy bunt bu doon jàngale maami sëriñ bi radiyallaahu anhu wardaahu ak taarixu juddoom in uridu l islam astatuma tawfiqi illa billahi alayhi i wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu